على من ولا سوى A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbokk julit yi, mbokk talibé yi, ñi ngi leen di nuyu ta di leen ziyara fi ci ëttu soxna yu baax yi di fas yene delsi waat ak yeen ci sun émission bi tuddu setantal ci kimtaani suñ boroom yi ngir waaru ci moom waaye setantal ci xéewalam yi ngir sant ko suñ émission bi passé ñu doon setantal ci doomu aadama ni nga xamante ni la ko suñ boroom binde yëkkati ko ci mboolem yeneen bindee fi ci des yépp ñu commencé woon ko ci bi doomu aadama bi mu gënee àdduna ba bis bi delsi bañ koy war a tudd dañuy gis ne dañuy dañuy jël xar ray ko tuddee ko ko lépp rek pour màggale ko jëmm jooju mi ngi gane àdduna nga gis doomu aadama foofu ni ko suñu borom gënalee ndax moom mbindeef la comme moom waaye teewul gis ne kee dafa ba bi mu juddoo rek danoo jàpp meneen mbindeef comme moom muy xar pour pour pour màggalee ko ko te buñ ko defee sax anam gi nga xamante ne mooy anam gi ko suñu borom diglee ay tiyaaba sax lañ ciy jëlee ñu seetantal ba àgg ci suñu borom ni mu bindee doomu aadama jox ko xel na xamante ne noonu la ko joxe jinne yi tamit ni jinne amee xel la doomu aadama amee xel tamit waaye ñu gis ne. mbollem yonent ya yi fi mosoon a ñëw yëpp rek ak téré yi nga xam ñoo jógee asaman wacc yépp ci doomu adam yi lañ gis na ci la ko suñu borom wàccee ya, won té dañuy wax na sax jinne yi nga xamante ne dañuy jaamu yalla ay e julit lañ dañ daan ñew ci yonent yoy ak nit yalla yoy di jébbalu ci ñoom nek seen ay talibé ñu gisaat fofu batay tey gënale gi ndax leer gi nga xamne mo moo ci suñu borom subhanahu wa taala muy alquran ak leer gi yalla gi nga xamne mom lay def ci walu yi ci doomu adam yi la fay def ñu doon continuer waat ba ci malaika yi tamit ni nga xamante ne ni la leen suñu borom bindee nga xam ne ñoom si leer kese la leen bind doomu aadama ruuxam moom tamit leer kese la mu nuróolewaat ko ak malaayka yi malaayka yi malaayka mu si nekk kuréel yi ay def ay kuréel ñuy def ay benn benn ñi nga xam ne dañuy taxaw di sa di kaabar di sàbbaal seen borom ñii taxaw di sàbbaal seen borom di ruqoo di sàbbaal seen borom di sujjóot di sàbbaal seen borom di taaya di sàbbaal seen borom kenn ko ne daal position ba nga xam ne suñu borom def na ko si yow nga xam ne moom ngay moom ngay moom ngay yor di sa moom ngay taxawee rek di sàbbaal suñu borom doomu aadama suñu borom may ko yooyu yëpp mën koo def ci ay minutes yu gàtt defandoo yooyu yëpp ba pare continué waat di sàbbaal boromam subhaanahu wa taala ndax doomu aadama lépp lu muy def rek dañoo wax ne bu ci yéenee ak jaamu yàlla rek mu doon ak jaamu yàlla lépp day daal delluwaat ci sàbbaal suñu borom nga gisaat foofu tamit gën a léegi fi nekk ñuy continué waat ba tey daat di seetantalaat ba tey rek ci wàllu bàyyi ma yi nga xamante ne da ngay gisaat ba tey doomu aadama ni ko suñ borom bindee muy yaram comme ni mu ko defee jëmm nii rek nga xam ne bindal yaram muy mu bind bindal eh, bàyyi ma tamit ñoom yaram defal leen jëmm nga xam ne dañuy yëglu tàng di yëglu sedd di xam lu neex di xam lu naqari di am lu ñuy bëgg di am lu ñuy bañ di di yëg coona di yëg nooflaay loolu tamit doomu aadama yi bokkale ko ak bàyyi ma muy màdd bi muy jëmmi doomu aadama nga xam ne ni jëmmi bàyyi ma di dundee rek muy mala yi noonu tamit la jëmi doomu aadama di dundee waaye nga gis suñ borom tamit ba tey ni gën a léegi ni mu fi gën a ni mu ko ni ko gën a defewaatee ci ci ci diggante doomu adama yi ak mala yi ak ba tey léegi da ngay gis ne am na bàyyi ma yoo xamante ne suñ borom daf leen bind nga xam ne ñoom ci gàncax gi rek la ñuy dund muy ñax yeeg yu mel noonu nga xam ne loolu kese la ñuy nu mënuñoo dund leneen lu dul loolu amaat yeneen bàyyi ma yoo xamante ne suñ borom daf leen bind ñoom tamit ñuy dundee ndawal kese ñoom tamit mënuñoo dund leneen lu dul ndawal nga gis ne doomu aadama moom tamit ba tey dafa ñëwaat boolewaat yooyu yëpp comme ni nga xamante ne ni la nuroo léegi ruuxam gi moo muy leer kese moom malaayka yi na xam ne na xam ne sàbbaal suñu borom rek lay dundee naka suñu borom gën a yëkkatee mu ëppalee ko mu ëppalee ko malaayka yi boo xalaat ni jëmm ji mbokkalewaat ak bàyyi ma yi tamit noonu rek la ko ci suñu borom mayewaat mu ëppalewaat ci bàyyi ma yi bu ci wàllu xel yi xel mi tamit mu ëppale ko bàyyi ma yi fuuf nga gis na foofu ba tey da ngay gis ni ko suñ boroom gën a gën a kaweele ci ñeneen ñi ci des nga xam ne doomu aadama dañuy wax ne boo xamante ne sàggane na jaamu yàlla ak si sàbbaal suñ borom subhaanahu wa taala mën naa dem ba gën a suufe bàyyi ma waaw ndax buñ seetantalee dañ koy daal di gis fii bu baax ndax gis nañ ne suñ borom lépp lu mu defal doomu aadama bu doon ko jëmm ji defal doomu aadama doon noonu la ko defalee bàyyi ma waaye xéewal yi dafa gën a kawewaat ci côté doomu aadama te doomu aadama suñ borom daf koo toog du jëf te bàyyi ma suñ borom toogu ko jëf kon dañuy gis ne bu ñàkkee jaamu yàlla rek daal di def bàyyi ma yi morom bu boobaa day day daal di gën a suufe bàyyi ma yi daal di gën a suufe bàyyi ma ndax bàyyi ma yi suñ borom toogu leen benn jëf te doomu aadama suñ borom daf koo topp jëf waaye tamit ñi ci seetantal ba tey di ci gis yërmande suñ borom ji encore ba tey ndax da ngay gis doomu aadama nit ku dafa judd rek suñ borom daal di koy commencé topp jëf daf koo bàyyi ab diir muy muy ba mu xàmmee mu door koo commencé topp jëf te diir boobu sax boo ci dee seetantal nii moom étape bi nga xam ne xale yuy jàng ci école yi buñ ci tollee ci lañu commencé di xool fan fan lañuy ban lan lañ bëgg a doon ëllëg xale yi dañ bu ñuy jàng ba àgg ci étape boobu muy luy toll ci 13 ans 14 yooyu dañuy commencé di xool ñoom lan lañ war a doon ëllëg dañoo war a nekk docteur wala dañoo war a nekk avocat wala dañoo war a nekk ingénieur wala sage-femme moo xam luñ bëgg a doon waaye ci état boobu la ñu commencé di di xool nag lan lañ war a doon di jéem a seet nag école bañ ko war a defee ji pour inscrire wu fa pour war koo mën a def étape boobu tamit ngay gis na moom la suñu borom di wàccee dogal boobu si doomu aadama muy dogalu commencé koo toog bi jëf muy xale bi nga xam ne mi ngi commencé di mesure nga xam ne xale yi jigéen ñi ñoom li ëpp si ñoom buñ tollee ci fukki at ñett jëm fukki at ak ñeent dañuy commencé gis baaxu jigéen te dañuy wax ne bu xale dañuy wax ne jigéen bu commencé gis baaxu jigéen rek booba suñ borom commencé na koo topp jëf commencé na koo topp jëf comme ni mu koy toppee muskàllaf yëpp boobaa muskàllaf na fas nañ ko topp jëf moom tamit bu dee xale yu góor yi tamit da ngay gis ne ñoom tamit da ngay gis seen kàddu yi di commencé di changé nga gis seen jëmm yi changé ndax dañuy wax xale yu bu dee góor su géntee rek suñ borom commencé na ko topp jëf wala mu sax ay karaw yi naq ak yooyu waaye da ngay gis ne yooyu yëpp boo ko ci xamulee tamit dangay gis ne xale yi dañuy seen seen kàddu yi day changé nga gis ne ñii ñu ngi commencé di nekk muskaalaf nga gis nag état boobu ni ko suñu borom lënkalee rek ni mu dendantee ndax état boobu dafa dendante lool fi nit ki dem juddoo ba bi muy màgg bay toll foofu da ngay gis ne bu egsee foofu lay door a commencé di xalaat nag wàllu addunaam li nga xamante ni moom la war a doon pour mën a defar addunaam état boobu la suñu borom di indi ak dogalam boobu tamit pour ne la léegi pour pour topp jëf doomu aadama pour pour pour topp ko jëf ni mu ko toppee muskaalak yépp muy lu doy waar nga xamante ne foofu doomu aadama suñ borom mi ngi ko fiy soññi boo dee buñ dee seetantal dañu seetantal ne suñ borom mu ngi ñuy soññiwaat foofu bu baax a baax ñu xamal ne yéen kat lii kese taxul leen a jóg dafa am leneen loo xamante ne moo leen indi woon li xéewal yi bari bari daal xéewal yi yor aw ab jaarukaay rek la waaye nekkul nag ne moo xam ne moo leen taxoon a jóg nga gis ne bi bi nit xale bi commencé xel mi commencé di xaw a mat tuuti rek pour mu war a jéem a seet lu mu war a def ëllëg rek ci lañ koy door a xalaatale moo xam xalaatal ko bopp moo la ay way juróom waaye ci lañ koy xalaatale daal li mu war a doon ëllëg pour mu bàyyi ci xel ba mën a dem sàkku ji ko naka noonu tamit ci la suñ borom di faral di indi dogalam boobu nga xam ne mooy waral mu topp jëf doomu aadama boobu muy lu doy waar te lépp rek di kiimtaane suñu borom waaye di yërmande yi suñu borom subhaanahu wa taala ndax fekkoon a def ko ko toppoon bi mu juddoo rek boo keroog muy toll noonu muy toll dina dina doy waar torop waaye daf ko bàyyi ba am xelam ñëw foofu tamit ñu ci gis xel ni amee solo nga xam ne suñ borom dafa fonk xel wax borom xam-xam yi da nga leen di diglu ñuy wax naan borom borom ku amul xel suñ borom topp ko dara maanaam ñi nga xam ne dañoo dem ba seeni xel wàññi ko sax seeni seen suñ borom topp leen dara te nit bu feebaroon sax ba munta jóg munta wax munta def dara sax toujours rek dafa am étape boo xamante ni bi noonu la war di jaamoo yàlla muy muy julli te waaye feeg mu ngi ànd xelam rek daf koy war ñu gis ne xel dafa foor lool dafa foor lool waaye ñuy seetantal ak yërmande suñ borom ji ak kéemtaanam di foofu bu baax a baax a baax na xale bi kat foofu mu toll di di xalaat lan la war a doon ëllëg foofu rek la suñ borom tamit di tege eh, loolu mu koy teg noonu pour xamal ko ne léegi maa ngi lay topp jëf comme ni ma koy topp muskaal ak yëpp nga xam ne foofu tamit ñu ci taxaw seetlu nga xam ne dañoo waroon di seetantal di xool bu baax ba xam ñun lan la ñuy kan moom indi fii ak lu ñuy lu ñu wut fii ak lu ñu def comme nañ nañ xalaatee lan lañ war a doon ëllëg ni lañ war a xalaatee tamit ñun ñooy kan doomu aadama loolu ni mu war a xalaatee li kan la war a doon ëllëg ba tax mu koy wuti di ko sàkku ji noonu la war a xalaate bu tollee état boobu ba xam moom mooy kan bu laajee moom mooy kan de daal di xam ne moom mii kat jaamu yàlla la boo xamante ne dafa diggante woon ak boroomam ca ësal ne ko la jaamu ba tax suñu borom wàccee ko fii ci suuf mu bañ koo fàtte mu de mu jéem a seet nag nu muy def ba man a jëfe ndigal yooyu nga xam ne digge woon na ko moom boroomam bu boobaa nag comme ni ma ko waxoon ci seetantal bee passé nga xam ne damaa waxoon ruuxu doomu aadama alxuraan mooy mooy ndeyam waaye bu bu dee baayam tamit mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nitu yàlla yi nga xam ne ñoo fi wuutu te leer boobu nekkoon ci yonent bi nekk si ñoom te boobu mu juddoo ba léegi moom gisagut ndeyam gisagut baayam muy alxuraanu karim ñi ci am taw féexu bi ñu tollee si dal jàng seeni waajur yóbbu leen ñu jàngi ñoom bu boobaa jot nañoo gis seen ndey ba jël ci leer yi léegi li ñu war a def rek mooy jéem a seet nag seen tànki bàyyi fi mu jaaroon ak rëdd bi nga xam ne seen bàyyi rëddal na leen ko ak yoon bi nga xam ne fi la leen moom la leen fi bàyyeel pour ñu war caa jaar ñu jaar fa booba boobaa sàkku ji xam-xam day daal di war te dañuy wax ne suñu boroom dafa wax ne na ngeen na ma xam door maa jaamu na ngeen ma xamul nu ngeen may jaamoo ndax kenn mënut a jaamu yàlla te xamoo noo koy defee faaw ñu wax la rek ni nga koy defee jàngi alquran ak na nga xamante ni bii ni la ni la ni la jaamu yàlla gi topptaloo ni nga ko war a defee nga di ko ñu defee loolu ci xam ci sàkku ji xam suñ boroom ci la bokk ñu gis suñ borom tamit yërmandeem ni mu yaatoo foofu lool ndax bu woon te toppoon ko ko noonu te ba liir bu tuuti rek dana doy waar lool waaye yàlla moo nu gën a xam suñ bopp ñun ñëpp rek loolu lépp ñu ci seetan taalaat kiim taani suñ borom yi ak yërmandeem ji yaatu ji ak bëgg gi nga xam ne bëgg na ko doomu aadama ndaxte loolu dadul mën a ñàkk jàng alquran ba xam ni ngay topp sa borom sàkku xam ba xam ni nga koy defee danu mën a ñàkk ndax loolu moo nu fi indi ndax bu nu xoolee in passé yëpp gënali gi nga xam ne suñu borom gënalu nañu ko ci ci ci ci ci mala yi muy muy bàyyi ma yi ak gënali gi ñu gënal si jënd yi ci wàllu xel gi ak gënali gi ñu gënal si malaayka yi ak gënali gi ñu gënal ci ci mala yi comme ni ma ko seetantalee léegi yooyu yëpp rek liñ setantal sabab bi mooy nangoo jëfe ndigalu suñ borom ak bàyyi ay tereem ndax dañoo wax ne suñ boroom bi mu toogee ba mu soob ko mu ne ndax da ngeen ma jaamu mbind fii yëpp dañoo dañoo gàntal doomu aadama kese moo nangu yenn amaana boobu ne ko waaw amaana mooy ndax mooy jëfe ndigal suñ boroom yi bàyyi ay tereem doomu aadama kese rek moo ko nangu woon a yan tax suñ borom yëkkati ko ba ba yëkkati ko ci mboolem nu bind ba tax dañoo wax ne suñ borom dafa wax ne mboolem nu mu bind rek doomu aadama moo ko si gënal waaye liñ ci seetantale rek mooy nangu jëfe gi ndigal googu ñu nangu woon bàyyi tere gi ba suñ borom yëkkati woon ñu ci kanamu malaayka yi foofu rek la ngëneel la nekkee ba léegi si na xam nga dañuy wax ne ku képp koo xam ne comme ni ma ko waxee sànq rek yaa ngi sàggane sa bopp ba jaamuwoo yàlla suñu borom waaye topp bakkan ak bànneex comme ni ko bàyyi may defee dangay gën a suufee bàyyi may waaye képp koo xamante ne tamit yaa ngi góorgóorlu di jëfe ndigalu suñu borom yi di bàyyi ay tereem di sàbbaal suñ borom comme ni ko malayka yi defee mën ngaa dem ba sut malayka yi loolu lépp rek ci nangoo jëfe ndigalu suñu borom yi ak bàyyi tere yi nga xamante ne moom la doomu aadama dige woon ak boromam moo ko ko may kon setantal bi dal liñ ci setantal lepp rek yëkkatiku ji ak suufe gi yëpp mi ngi aaju ci nango jëfe ndigal suñ borom ak baye ay tereem képp ku nango jëfe ndigal suñ borom rek yaay ki ko ba faaw waye ki ta jëfe ndigal suñ borom rek moy ki suufé ba faaw ba gën suufé baye mu yalla nañ ci yàlla musal ndax doomu adam bo gisé ni ko suñ borom bind rek da ngay xamné amna lu mu ci mom ndax suñ borom bi bindé doomu aadama daf ko yëkkati mu jog taxaw don don so jëm ci kaw bu dee ci mala yi muy bàyyuma yi da ngay gis ne ñoom dañ leen a sëgal mala bi lu mu rëy rëy rëy rek dangay gis ne suñ borom day dogal rek mu sëgg moo xam muy borom ñeenti tànk moo xam muy borom ñaari tànk waaye day sëgg nga gis doomu aadama moom suñ borom siggil ko si kaw bu fekkente ne ba tey si garab yi laat gàncax gi dangay gis ñoom tamit yenn yi suñ borom da leen a yëkkate ca kaw doo mu yamale leen foofu ñoom passé wuñ foofu dañoo taxaw rek bu fekkente ne yeneen yi gàncax yi ci des na xam ne yu ndaw ndawaan la yooyu tamit dañuy sëq rek taxaw ci benn place foofu duñ ko passé bu dee yi nga xam ne day law la ñoom dañuy law rek di dem mënuñu koo passé ñoom ñëpp kenn ko ne fi leen suñu borom xirtal rek foofu rek jëm yem fa waaye doomu aadama suñu borom daf koo may position yooyu yëpp mu mane ko yëpp mu mane ko bu bëggee sëgg day sëgg bu bëggee tëdd day tëdd bu bëggee taxaw day taxaw yooyu yëpp suñu borom def ko ci jëmmi doomu aadama doomu aadama doy waar lool nga xam ne mboolem suñu boroom bind rek moom dafa ñëw ëppale ca loola ah, nuróole ci ak loola nuróole ko moom ba pare amaat leneen loo xam ne loola loola amu ko kon suñ borom subhanahu wa taala doomu aadama su ne ko soo loo mën a mën a sut malayka mu war ko mën a gëm ndaxte wax dëgg yàlla malayka yi wax nañ ne dañuy def ay kuréel di sàbbaal ñii taxaw dëkk ca ñii rokon dëkk ci ñii di ñii di sujjoot dëkk ca ñii di taaye dëkk ca doomu aadama ñu di defandoo yëpp di defaat yeneen ak yeneen kon war naa mën a nekk war naa mën a dem ba mën a sut malaayka bu fekkente ne doomu aadama ñu góorgóor ndax suñu borom mën nañu ko mu leer naññi bu dee ci bàyyi mi tamit noonu kon ñu gis na daal doomu aadama moom suñu borom comme nañ ko waxee woon bee passé rek dafa mel ne dafa defar daal kaw ni bi ba mu egg li fi nekk yëpp mu jël ko teg ko si loxol doomu aadama moo xam muy jariñoo loola directement wala loola di jariñoo waat leneen ba lépp mbir yi del si waat ci loxo may lépp rek suñ borom def ko teg ci loxoy doomu aadama ndaxte animal yi moom noonu rek ngi leen suñu borom bindee mooy ñi nga xamante ni dañoo sëgg rek continuer noonu rek la ñuy def muy fas yeeg mbaam yeeg bay yeeg yooyu yëpp sëgg rek lañ def noonu leen suñu borom bindee bu dee ci gëléem yeeg yooyu yëpp luñ rëy rëy rëy rëy rek dañuy sëgg ba mala ba ca gën a tuuti da ko suñu borom da koo sëgal yenn yi tëdd ci suuf di bat yooyu yëpp rek di kiimtaani suñu borom subhaanahu wa taala doomu aadama moom suñu borom may ko position yëpp mu mën koo def bu dee ci xeetu saabal gi mu may ko ci xeetu saabal yu baree baree bari mën koo def comme ni ko malaaka defe ba dàq leen su fekkee wàllu xel la comme ni mu ko mayee jinne yi moom suñ borom may ko ci ndax li sell li nga xam ne moo jóge ci suñ borom subhanahu wa taala ci doomu aadama la koy jaar la muy leeram gi su fekkente ne dund si gàncax gi la comme ni ko ni mu ko mayee bàyyi ma yi noonu la ko may muy dund ci mboolem xeeti gàncax yi di dundaat tamit ci wàllu ndawal gi ci mboolem xeeti wàllu ndawal yi bokkalewaat ko bàyyi ma yi ba pare continué waataat amaat yeneen yoo xamante ni bàyyi ma yi amuñu ko kon doomu aadama suñ borom kayal na ko ci mboolem lu mu bind waye nak lepp rek lim li ko ko may moy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi nga xamantene ne siñe nako ak suñu borom ci aras ba tax mu wacce ko fi ci suuf ndax bobu la ko borom yëkëti won te bu jëfee ndigal yi tere yi bu demee delluwaat fa mu delloon wala fa ko kawe kon dañuy gis na doomu adama daal ak ak kawem ak suufeem yi comme ni ko waxee sank mi ngi mi nekk ci jëfe ndigal suñu borom yi ak bàyyi ay tereem yi lañ fi indi won tay ji ak sétantal di leen ñaan ngeen di